bonjour amis fidèles internautes Sénégal 7 ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, souhaiter un très bon week euh, comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk ci seen euh, entretien spécial yi nga xamante ni moom lañ leen di proposer comme programme ñu fas yéene waxtaanee rek li nga xamante ni moom mooy tolluwaayu réew mi bien évidemment lépp loo xamante ne nii rek dafay permettre tey sénégal yi gën ci gis seen bopp ci la Sénégal 7 di wéy ba tax na dañuy am ay nit yoo xamante ni dañ leen fi indi suñu ay plateau waxtaanee lu bëree bëri ci li nga xamante ne ni tey moom la Sénégal soxla ak li nga xamante ni moom la ñuy xaar ci le nouveau gouvernement ku ne xam na di a des défis à mais aussi y a des personnes ressources yoo xamante ni dañu mës a contribuer euh, ci li nga xamante ni moom mooy développement Sénégal euh, depuis les années 1960 à nos jours euh, tàyyiwuñu di yëkkati seen plume wala di poser ay actes yoo xamante ni c'est des actes positifs actes de démocratie acte de souveraineté ba tax na tey dañu fi dalal le président Mamadou de Decroix mu secretaire général AJPADS kooku duñu ko présenté ci Sénégal wala au niveau international moom lañ fi dalal tey fas yéene waxtaanee sujet yu bëree bëri ma dalal ko bàyyi ko mu présenté ak internautes bu ko defee ñu tàmbali waxtaan bi maa ngi lay nuyu doyen. maa ngi lay fay bu baax euh, soxna Lalla Rasoul <coughs> di kontaan ci li nga ma dalal ci sa ëtt bi. Mhm. di nuyu aussi sa technicienne bi soxna tuuti. tuuti. ak itam ah, téléspectatrice ak téléspectateur ñi nga xam ñu ngi ñuy seetaan. ci mhm. Sénégal 7. d'accord mhm. alors kilifa gi comme ni ma ko waxee tey euh, gis nga bi gouvernement bi falo ba tey depuis élection yi kenn déggu la je crois que yaa ngi soog a def sortie euh, depuis 24 mars ba tey. donc yaa ngi doon toog sa recours di observer di gis ak yi ñuy posé d'abord votre lecture ci départ bi nga xamante ni moom la euh, gouvernement actuel bi ok soxna Lalla bon mais quand même jot naa fee mhm. euh, def ay sorties hein waaw mhm. ah oui oui ah oui def naa fi conférence de presse mhm. euh, bi ñu wotee le vingt quatre mars hmm, defe naa ne liñ ci deux semaines Mhm. le 7 avril def naa benn conférence de presse. Mhm. waxtaan ak euh, taskati xibaar yi waxtaan ak Sénégal ci ni ma gisee affaire maam situation réew mi ak gouvernement bu bees beeg yu mel noonu. Mhm. Euh, defaat naa fi aussi beneen sortie mais man damay faral di. bind en fait comme ni nga ko waxee sànq. Euh, voilà bon léegi nga ne ma nu ma gisee. maanaam votre lecture wala aperçu par rapport ak euh, gouvernement bu bees bi acte ñu nekk di poser ok alors balaa ñuy dem au fond en mhm. fait euh, plus que gouvernement bu bees régime bu bees mhm. parce que bon président man na nekk mm, toog ba jëmmi jamono mu changé gouvernement changé premier ministre changé ay ministre mais bii moom président bi ci boppam la ñu changé mhm. moom it mu ñëw teg gouvernement et cetera yaa ngi ñu ngi ñu ngi implanté wu daal. Mhm. voilà euh, bon euh, comme ni ma ko waxee saa su ne cest Sénégal Afrique laay wax sax Afrique euh, dafa surtout Afrique du sowu jant Afrique de l'Ouest dafa toll ci moment boo xam ne bu particulier la mosu ci toll depuis époque coloniale waaw maanaam peuple yi. particulièrement jeunesse bi euh, dañu taxaw daal ne affaire bi doy na waaw mhm. doy na c'est-à-dire domination bi exploitation bi humiliation bi euh, suñu réew yi mënuñoo dem mënuñoo lekk ba suur mënuñoo naan ba màndi mënuñu am fu ñu dëkk ndaw ñi mënuñu am xëy ñi ngi dee ci géej gi dafa doy mhm. loolu loolu foofu lañ toll euh, Sénégal Euh, di ci réew moo xam ne aussi naka jekk euh, dafa am particularité ci histoire coloniale bi euh, continuer ba fi mu ne sax am ci particularité boo ko seetloo pendant peut-être ay téeméeri at ñaar téeméeri at tubaab yi mhm. bi ñu fi nekkee yilif suñu réew yile Sénégal yi ñoo daan dem ci yeneen réew yi di def daanaka eh, prolonger maanaam administration coloniale moo mhm. tax moo tax bon euh, boo dee ci sur réew Afrique yu bare boo fa demee da ngay gis sénégalais yi euh, léegi dañu imp impliqué nekk ay citoyen par mhm. exemple man Mamadou Diop laa tudd am na benn jamono soo demee Gabon mhm. secrétaire général présidence de la république bu Gabon Mamadou Diop la tudd. Mhm. voilà et am na ci yeneen i réew yu mel noonu. alors donc Sénégal dafa am rôle bu muy jouer naka jekk ci situation Afrique. Mhm. kon buñ tolloo fii euh, sénégalais yi voté ñu fal euh, Bassirou Diomaye Faye. Mhm. bon euh, moom ak. ñi mu seqal Ousmane Sonko président wu Pastef mhm. euh, ñoom dañu nekk ay ñoo xam li ñu bëgg wax ko ak ñun li ñu bëgg di ci dox naka jekk wuutewut maanaam benn bi mooy liggaay di tuddee souverainiste bon ñun duñ koy tuddee indépendance quoi parce jàpp nañ ne euh, suñu réew yi amaguñu indépendance te dañu war a am indépendance d'accord euh, donc ñoom ñi ngi yëngu ci loolu lu lu nu rafetlu la lu am ama am solo la mhm. parce que mënoo régler problème mu sa réew su dee économie ba fay dox maîtriser woo ko mhm. économie mënoo ko maîtriser bu fekkee ne yow amoo mënoo am politique monétaire mhm. wàllu xaalis donc kooku ñu ngi koy wax ak yeneen ak yeneen ak yeneen mhm. euh, armée yi nga xam ne dañuy jóge ci yeneen réew ñëw nekk ci sa réew euh, base militaire yi voilà et cetera yooyu yëpp euh, dafa war a daf war a jóge ñoom ñu ngi yëngu ci loolu mhm. ñaareel bi aussi mooy transformation yi war a am li ñu war a soppi dem dans le sens des intérêts du peuple maanaam Euh, nu fexe ba jafe-jafe yi askan wi di ah, jànkoonteel ñu lijjanti ko. li mhm. jiitu ci loolu mooy lekk ba suur. surtout lekk ba suur. la souveraineté alimentaire. Sénégal Sénégal Sénégal tuddewuma ko sax souveraineté kooku ay terme banque mondiale la woon bu njëkk man yooyu terme duma ko utiliser. Mhm. autosuffisance alimentaire laay wax. Mhm. maanaam Sénégal li muy dunde war na koo mën a bay. mais ba fi mu ne nii am na ñoo xam ne euh, bu ñu ndekkee du ñu añ bu ñu añee du ñu reer. Mhm. donc loolu priorité la numéro un. donc loolu dafay dafay daanaka dugg ci li ñuy wax foncier bi tey coow li jàppal bàyyil tool yi. ci ci kaw ah, dinaa ñëw dinaa ñëw yooyu xam naa di nga ci wax bon cadre litige foncier bi. et cetera am na ci exemple yu ñu ci mën a jël. voilà ñerteel bi nag mooy euh, unité africaine. africaine. Mm-hmm. maanaam nit ñi mën a àndandoo loolu xam naa dinañ ci waxtaan parce mm-hmm. que maa ngi def ci sama page Facebook euh, premier ministre bi Ousmane Sonko annoncé ne wa mm, bëgg na dem ci yenn réew yi mm-hmm. ak yooyu def naa ci ay ay jàngat euh, defe naa ne ñett yooyu daal euh, nun lu nu masa soxal la man su ma jiite woon réew mi tey ci ñett question yooyu ci laay ci lay gën a ràññeeku ci wàllu yëngu. alors gis nga sa bopp kon ci ci ci projet bi. voilà kon mel na ni ñoom ci loolu la la ñuy yëngu. Mhm. moo tax euh, ñun dañu lu loolu te it wax nañu ne fas nañ ci yéene jàpp. incha allah voilà incha allah. c'est important alors comme ni ma ko waxee tout ci wàllum foncier bi. Euh, bi ñu arrêté construction yi mu xaw a jur yenn coow am na sax ñu génn ñu ne non euh, la question du litige foncier c'est une bombe bomb la boo xam ne boo ko laalee faw nga dem au fond mais jàpp nga ni tey war nañ ko mën a régler une bonne fois pour toute cette question la parce que euh, mas nga interagir sur la question de Ndingler l'affaire sur Babacar Ngom Sedima e l'actuel président de la République donc mu mel ni question la boo xam ne il faut que Sénégal ñu régler ko dépasser ko pour mën a avancer. absolument kooku moom <laughs> mënoon naa xëy na sax yónnee la ci Google gi. Mhm. ay sort yu bare yu ma def ci mbiru mbiru mbiru suuf. Mhm. mbiru suuf dafa dafa dafa Sénégal vraiment dañ ko négliger trop trop trop trop. maam négligé laa mën a wax laa mën a wax mais dañoo dañoo ñi ñi gouvernants yi dañu mas a sàggane problème boobu euh, réew yu bare bare yu tàkk suufa ko taal mm-hmm. kon euh, mbir la mu am solo euh, defe naa le fait que président bi dem Thiès mm-hmm. xool affaire yi. l'affaire de Mbourkat. ah Mbourkat euh, la da signal lañ ko war a jàppe signal maanaam buy wane ne bàyyi nañu xel problème mu suuf ci Sénégal euh, te euh, fas yéene nañ ko lijjanti mais nag attention yombut ah oui oui dafa dafa dafa. complexe. Mm-hmm. dafa compliqué. mais foog nga tàmbali di avancer di dem di dem du du maanaam way président bi comment dem na fa lundi bu mercredi affaire bi jeex na kenn dootul wax affaire non non non non problème la boo xam ne euh, pour man du jël ay ñetti fan ñaar ñetti fan du jël ñaar ñetti weer euh, non ay at lañ koy lay lay lay. maanaam dañuy topp procédure bi. voilà alors maintenant li ëpp solo mooy am na ay études yu bare yu jot a am. même dernière étude bi mooy commission bi Macky mhm. Sall tegoon euh, pré euh, présidé par euh, Moustapha Souran yàlla na mhm. yàlla yërëm def nañu rapport ba joxe mais gis nga rapport bi ñu ko joxe ñu bare dañuy fàtte commentaire bu Macky Sall defoon daf ne waaw rapport bi gis naa ci ne yéen a ngi proposé ñu suuf yi ñu jox gestion wu suuf yi ñu jox ko maire yi mu ne loolu su ma ko defee àddina tukki suuf dootu fi des fii ñaari weer la waxoon na ma ñaari at suuf dootu fi des mhm. daf ne dinañu jaay suuf si ba pare teg ci ne duñu ko jaay sax sénégalais yi doxandéem yi lañ koy jaay mhm. président eh, bu wax loolu xam nga kooku dafa garaaw trop trop trop trop trop daf lay wan fan la mbiru suuf si toll mhm. donc mais loolee ñoom ñu def étude ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bari na études yi ñu def ñu sukkandiku ci li nga xam ne ay urgence la ñu war lijjanti ñu lijjanti ko en urgence parce que c'est important pour sénégalais xam ne ñi nekkuñu di kaf mais bi nga déggee tey ay parcelles yoo xam ne benn nit deux cent hectares ñii six cent hectares ñi quarante <laughs> hectares ci foo xamante ni lu sénégalais yëpp waroon bokk la te ça date pas d'aujourd'hui tey mën nañu wax ne vous êtes mieux placé pour mun ci wax ci cas yooyu parce que par expérience am na ci poste yoo mas a jot ak actuellement bu ñu doon indexé wala ñuy pointer de du doigt kan la ñuy situer responsabilité yi. mais c'est ce qui gouverne ñi yor réew mi war koo doxal ci yoon ñoom la parce que ñoo ko doxalut ci yoon. Mhm. xam nga nit man nga lañ la dénk dara nga sax bëgg koo doxal ci yoon mais xëy na na ko bëggee woon mëne woo ko ni daal mais bëgg nga koo teg ci yoon mhm. mais man lañ la jox aussi nga décider ne affaire bi dama ciy def nii def ci def def ci def ci nii def ci nii loo xam ne dëppawul ak yoon mhm. comprendre nga kon saa su ne ñi jiite la ñuy teg responsabilité mhm. maintenant nag c'est pas parce que dañuy seppi benn bopp ne mooy responsable parce que loolu responsabilité day partagé wu ci ba ca suuf parce mhm. que sànq maa ngi lay affaire maire yi du maire yëpp jaay suuf mais maire yu bare bare def nañu ay jéyee ci mhm. biir suuf mhm. mais maire yi du ñoom rekk aussi ah parce que dëkk boo dem bu dee ci kaw gi euh, maire ba day likkaloo ak ministre kilifa sàngam. wala mhm. ki non pas pas ministre. chef de village ba. wala mhm. en tout cas daal kilifa sàngam wala kilifa sàngam wala kilifa sàngam ñu dox seen ci guddi gi. Mhm. lijjanti seen i yëf et cetera et cetera. bari na ci d'accord donc yooyu yëpp euh, ak nag sax maintenant am na traditionnellement suuf si dañ koy gérer ci réew mi itam. beneen affaire la mais kooku moom beneen mbir la xam naa ca kanam mhm. lañ ci wax mais déjà lii nga xam ne ay ay ay litige la ay conflie la war nañ ko mën a lijjanti te te kon jàpp nga ni tey ñii di wax naan euh, dañu war a teg coowal suuf si te liggéey yow àndoo ci thèse boobu teg coowal suuf ci te liggéey parce que am na ñoo xam ne ci ancien régime bi lañ nekkoon exemple peut-être Madiambal wala ku ci mel ni euh, ab dumbo def na fi sorti di wax ne waruñu focus carrément ci litige foncier bi ah dañu war a liggéey mel ni comme si euh, comme si ni ñoom euh, mbir moomu dafa nekk ci kanam par peut-être ak li nit ñi di xaar ci ñoom non non kuy liggéey kay foo xam ne ay mbir lënt na fa lu mën a yàq liggéey bi mhm. wala tardeel liggéey bi wala xajamal liggéey bi da nga ko war a lijjanti mhm. kon mbiri suuf ci priorité la ci li ñu war a jëkk lijjanti priorité la ci hein mhm. euh, priorité bare priorité yi bare na mais suuf moom priorité la ci d'accord alors comme ni ma ko waxee depuis euh, sànq sujet yu ñu war a discuter bëri na ba tey ci coowal mun nañu wax ne ancien résime bi fi nekkoon bi ñu defee évaluation yi publication rapport yi euh, démb publier nañ 30 rapports cour des comptes yu bees mais selon vous bi nga xoolee rapport yi publication yi gestion beeg yooyu noonu loolu aussi bëggoon nañ nga indi ci sa xalaat waaw rapport yi xam nga <laughs> maanaam soxna ñoom ñun li nu mas a wax. naka jekk <laughs> mooy réew mi. dañ ko doon dañ ko doon partagé. ni muy doxee baaxut <laughs> d' accord bon su su rapport yi génne firndeel lanu nu doon wax <laughs> amu ñun maanaam maanaam du lu nu nuy bett daal. Mhm. man man awma ci dara lu may bett. ci ci li xew. ci ci non non xamoon naa ne noonu lay doxee. xam nga li ci xew moo bari ay procès daf fi jaar lu nekk jaar fi. ci ci question de yoo xamante ni rapport am na ak amul ba tey ñi dépp ñu publier rapport yi. waaw d'accord kon kay lañ doon wax feeñ na que ne euh, yorin wi dafa xajam. Mhm. yorin wi dafa dafa dafa problème la donc. seen normal nit ñi di waxtaan grand place yi jàppal bàyyil mais li ëpp solo mooy lijjanti ko lijjanti ko il faut rapport yi c'est bien loi bi daf na nañu publier rapport waaw mhm. ah, mooy bu loi ne publier nañ publier rapport soo publier wul rapport yow yaa tooñ yaa war a publier rapport mhm. maintenant rapport yi suñ ko publier am na ay recommandation yoo xam ne en général ñu bind rapport yi dañu naan euh, voilà euh, jàpp nañ ne lii lii lañ ko war a doxale mhm. voilà bu boobaa li ci war dem Euh, justice dem justice li ci war a dem feneen dem feneen. Mhm. ça c'est clair mais euh, pour man euh, <laughs> nee nga nee nga gars yi dañ ne nañu focus focus kay focus <laughs> loolu focus la. focus mooy nga waxuma ko opposition bu bees bi ñoo ko wax. voilà non non mais ci opposition bu bees bi. focus c'est normal. focus mhm. da ngay def àddina lu ne da ci loo loo loo xam ne lii da nga koo yor war koo doxal da nga ciy focus. Mm-hmm. donc focus bi mooy effectivement fexe ba évidemment li nit ñi doon wax ne affaire yi doxut rapport yi dina wane ne waaw yorin wi des na euh, liñ ci war a def ñu def ko ci. Mm-hmm. mais fexem nag aussi looloo ci ëpp solo nag ba dootul amati. fexe ba loolu dootul amati. ci réew mi teg ay réformes yoo xamante ne ni day permettre yooyu yëpp mun fi jeex. ah oui boo xam ne bu ko tegee doone jëye dootul am non loolu mm. moom mënta nekk mais un jëye dina néew lool lool lool. par rapport ak ni mu doon demee ba fii ñu toll tembe. ensuite su amee du toll na mu daan toll ci bëj fii ñu toll tembe te it dinañ ko war a mën a lijjanti. ci lu gën a gaaw. Mhm. loolu daal moom. alors euh, tey euh, nga bokk ci parti bu ñuy wax ah, nga nekk secrétaire général AJ/PADS mun nañu wax ne jamono ji euh, ba élection yi jàllee ba tey ñu ngi wax waxu nouvelle génération est-ce que jàpp ngeen ni parti boobu war na mën a renaître waat les lien pour mën a amaat place ci politique Sénégal. mais xam nga politique ak dundu doomu aadama bokkut. Euh, politique du ay affaires yi juddoog deeg yooyu parti politique yi fi ne mais euh, Pastef Ousmane Sonko nekkoon na euh, député 2017. Mm-hmm. coalition la amoon. Mm-hmm. benn député la amoon 2017 rek aujourd'hui tey bu Pastef demoon mën naa wax ne c'est la principale force politique du pays. Mm-hmm. kon addina noonu lay demee. mais c'est pas parce que euh, kii dem na toll woon na fii dellu ginnaaw kon dee na déedéet. aywa ah, gëmoo thèse boobu. non gëmoo ni yéen. mais ñuy wax ne seen parti bi dee na ak yooyu gëmoo yoo gëmoo loolu. non benn parti deewut. parti yi nga xam ne ñu ngi ci nit ñi di wax ak nit ñi nit ñi di ànd ak ñoom benn deewu ci am na nag man ngaa am doole ci benn jamono. néew doole ci benn jamono noon noonu lay doxee PDS tey ñaata député la am assemblée ñaar fukk ak juróom-ñaar. Mhm. bële passé ñaata député la amoon est-ce que matoon na douze. Mhm. bu matoon douze ca la yem. donc <laughs> yooyu bon yooyu ay. mais xam nga tey exemple bu ñu jëlee kaaw PDS ku ne xam na ni euh, ci élection yi seen candidat bi mujjul participer. bi ñu jógee ci loolu mu rejoindre la coalition Diomaye mais est que jotul aussi Karim même suñuy def mandat d'arrêt international dem jëli ko mu def retouram ci dëkk bi ñëwaat imposé boppam peut-être. mais mais loolu waa PDS ñoo la ci mën a tontu. juste dañ ci bëgg sa xalaat rek non non naa non non non du ma toog di wax ci benn parti nii naa naa loolu duma ko def du suñu du suñu cër. aussi du lu nu jàng. Mm-hmm. sauf ñi nekk ci pouvoir parce que ñooñu suñu yëf la ñu yor. Mm-hmm. ñooñu mën nañoo wax ci ñoom. mais mun nañu taataan sa gis-gis. ci ret ma ni mun nañu taataan sa gis-gis ci retouru. Karim non non non kooku Karim ak waa PDS la concerné <laughs> ak peut-être bon sénégalais yi ñi ànd ak ñoom peut-être leen voteel wala yu mel noonu ñoom. mais man mënumaa toog fii naan Karim lii la war a def wala lee la war a def ndax kon moom it dina ne non de croix lii la war a def lee la war a def te mhm. bu duma ko ko nangul d'accord am nga ci plein droit c'est juste que parfois aussi dañuy bëgg seeni xalaat ak seeni gis-gis waaw mais loolu la ñuy wax ingérence dans les affaires intérieures d'un parti mhm. xam nga aussi Sénégal il faut kenn ku ne wax ji bari na mais ku ne war nga am foo mën a yem mhm. yow man awma droit di wax sa kër lafa fa xew ak na mu demee di ko wax ci tali bi. Mhm. su dee sama xarit nga nga am problème xanaa mën naa ñëw nu wax ko ci ci ci ci pet. ci ci mhm. ma génn dem sama yoon. Mhm. waaye dem ci télévision naan parti sàngam nii ka ko jiite ne non loolu loolu moom. xaw xaw ma ndax am na ay leaders yu koy def de. da euh, d'accord alors comme ni ma ko waxee gis nañu euh, tey kàddu yi premier ministre bi yëkkati ci wàllum campagne agricole bi. ñu bëri tey jàpp nañ ne espoiru Sénégal agriculture daf ci bokk moom mu jël décision ni semence beeg engrais bi euh, euh, force de l'ordre et de sécurité yi ñoo koy distribuer muy militaires yi mu nekk décision boo xamante ni peut ñëpp jàpp nañ ni cette fois-ci bu engrais beeg semence bi yeggee ci ñu mu war a yegg dina yombal mbir mi. waaw <laughs> loolu la ñu mas wax nun loolu la ñu xam nga sa ci départ bi dama la ne ñun li ñu mas di wax. mel na ne ñoom ci la ñuy yëngu. Mhm. kooku kay dañ koy rafetlu. d'accord parce que effectivement euh, système bi ni muy doxee. doon doxee. Mhm. moo baaxut. parce que fu ci ne day am intermédiaire loo yëkkati rek am na du ci mbay mi rek. mooy eh, mooy intérim intérim yeeg yooyu. loo ci yëkkati rek am na ñu dox ci diggante bi diggante fa muy jóge ak fa muy yegg di di di di. li tubaab di wax siphonné maanaam di di tibb di def ci seen poche ba nga xam ne. Mhm. man dama koy wax toujours dama naan soo dugalee cent ci pipeline bi peut-être buy yegg ci baykat bi cinquante lay doon ba soixante bu baree ba bare li ci des lépp day des ci euh, àll bi donc euh, waaw il faut tester. il faut mhm. tester ça c'est une bonne idée. Mhm. ah oui parce que soldats yi ñoom. Euh, <laughs> ni mais est-ce que jàppoo ni aussi euh, secteur boobu bu dee audit sax war nañ ko ci def. non fépp soxna si du audit du ci foofu rek. moo tax euh, dama la ne redresser Sénégal jubbanti Sénégal non du ci ñetti fan du ci ñetti weer. Mhm. du ci ñetti at sax far. jubbanti Sénégal. Mhm. ku jàpp tellement que li yàqu dafa bari. loolu dafa dafa bare c'est d'abord d'abord d'abord jubbanti suñu bopp yi ah oui cest à soo jubbantiwul sunu bopp yi. Mhm. doo jubbanti li ci des. effectivement mais ñun jubbanti kooku nu de ah non non parce que fi mu ne gisoo boobaak léegi yaa ngi may laaj loo xam ci gouvernement bi li ñu def nii kii waaye ñun loolu lañu war a def nun aussi mhm. pour mën a defaraat suñu toogaay. Mhm. defaraat sunu toogaay bañ jël oto buy def fanweeri nit nga def fa juróom fukki nit bañ dem foo xam ne. dañ ne lii bu ko fi kenn def nangam nga def ko fa. Mhm. Eh, et cetera et cetera mhm. yooyu yooyu yooyu c'est-à-dire peuple mi ngi sax ci alquran ah, waaw way way inna la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim cest yéen bu ngeen bëggee ma ma jàppale leen ngeen sopp ngeen soppi seeni mbir kenn ku ne ci yéen day war a seet boppam pour seetaat taxawaayam soppi taxawaayam ça est-ce que pare nañu pour loolu donc gouvernement bi am na responsabilité yu mar a assumer clairement mm-hmm. mais doomu aadama yi kenn ku ne am na ay responsabilité yoo war a assumer clairement mm-hmm. waaw et c'est important parce que euh, ñu ngi posé wu la question certes gouvernement bu fi toog war na am opposition bu fi nekk mais tey quelle opposition face à ce régime c'est ça la vraie question boo xamante ni moom dañu war a soulever parce que Sénégal dañu romb ci benn période boo xamante ni mun nañu wax ne du woon sax affaire de opposition mais affaire de yàqante la xas gor loolu lañ fi doon gis donc tey ban euh, opposition ngay xaar boo xam ne mun na jàppale état bi jàppalewaale ñoom seen bopp que politique bi fi amoon duñ ko fi gisati waat. ñun dafa am nu nu gisee opposition noonu lañ ko mas di doxale itam. Mm-hmm. donc euh, suñu gis-gis ci opposition changé wul parce que man dama def vingt sept ans opposition avant ma doon ministre sànq yaa ngi naan euh, ci début de euh, ci année soixante man bi ma amee dix huit ans laa commencé di yëngu di bañ li fi xew mhm. ba deux mille soo ko xoolee ñaata at la vingt sept ans lay doon mhm. jàpp vingt huit ans d'accord mhm. bon après Euh, ma opposé Macky Sall douze ans xam boo ko ba boolee bare na de mm-hmm. kon xam naa luy opposition mais opposition ñu niñ ko gisee c'est pas une opposition de saaga Moussa mm-hmm. saaga ngañ saaga Ablaye saaga Fatou déedéet mm-hmm. wala xas ko no opposition ci idée la ngay ngeen ngay ngay opposé ñii def nañu lii ñi fi ci gouvernement def nañ lii lii lii lii ànduma ci ndax lii ak lii ak lii mhm. te loolu mooy tax euh, nit ñi duñu doon ay noon di noonoonte mhm. di reyante maanaam di <laughs> voilà mhm. euh, ñun loolu noonu lañ ko mas di doxale donc euh, for forcément damay jàpp ne opposition noonu la war a doxale d'accord alors euh, dama bëgg ñu dugg ci wàllum diplomatie parce que euh, euh, ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi war na recevoir Paul Kagame tey dafa war a ñëw Sénégal ñu gis ne moom président de la République mi ngi gën a renforcer li nga xamante ni moom mooy wàllum diplomatie. moom mooy. moom mooy wàllum diplomatie. te bokk na ci liy créer partenariat moo xam national multinational te loolu dafay permettre tey peut-être Sénégal mën a jëlaat beneen vole sur l'échiquier euh, l'échiquier international. mais bon Paul Kagame ñëw fii kooku moom du ça c'est les activités des chefs d'État Paul Kagame amoon nay relation ak Macky Sall. Mhm. c'est clair que bu ñëwee fii mooy pour que affaire bi diggante Sénégal. gën a consolider gën a gën a dëgër. jàpp naa ne mën nañu def lu bare bare bare côté boobu. parce que man lu tax ma posé la question foofu mooy daf si am ci ñu fi jot a visite yi fi jot a am amoon na ay wax yu ci jot a am. comme le cas de euh, Michel euh, secretaire Union européenne. Hmm. jur na fi polémique boo xamante ni ku nekk yaa ngi doon wax ne non statut bi mu am est-ce que Diomaye war na ko recevoir donc mu mel ni dañuy xaw a fàtte ni dañu war a tiise suñu ay relations diplomatiques. ah bon amoon na coow. <laughs> bon si parce que eh, gis nañ fi eh, ku mel ni imam Makhtar Gueye Jamra génn na fi sax di wax ne non le gars. bon la xam nga mu jur fi coow il faut aussi on fait la <laughs> part fait on la part des choses quand même. Euh, Kagame euh, ak beneen président bu mu mënti doon euh, li président africain yi war a def ci ñun suñ gis-gis. mooy ni ñuy fexe ba dajale Afrique waaw mu am li ñuy wax unité africaine. Mhm. waaw ñu Afrique def benn dànk euh, mën a régler ay problème am. Mhm. bon euh, dem na. Euh, fan euh, Gambie dem na Mauritanie dem na Abidjan bu subaa dina dem feneen ak feneen ak feneen. Mhm. kon yeneen chef d'État aussi dinañu. fa ñëw mhm. voilà loolu moom c'est normal. Euh, mais li ëpp solo te defe naa ne ñoom sóoraale nañu ko mooy par delà loolu yàgg na fee am. Mhm. attends Sénégal moom. Sénégal moom quel que soit le président depuis Senghor Sénégal Sénégal la. Mm-hmm. gars yi dañ koy fonk di fi ñëw et ñun lan lañu mën a jural war a changer maanaam war a yokk ci affaire bi foofu la ñu war a waxee te foofu vraiment euh, mooy fexe ba Afrique mën a nekk benn dànk Kagame xam naa ko bu baax euh, voilà am na ay jamono bi ma nekkee ci gouvernement parce que dama doon toppatoo TIC. Mm-hmm. technologie de l'information et de la communication maanaam affaire yi ñuy toppatoo. Euh, ba ñu xamante woon ci daf ko intéressé trop trop trop trop. Mhm. donc fii gis naa ne digitalisation ñi ngi koy wax lu ama ama am maanaa la a jekk. Mhm. man deux mille en deux mille deux mille. deux mille bi Abdoulaye nekkee président maa doon ministre de la culture et de la communication. Mhm. amoon naa déjà en deux mille quinze projet yoo xam ne bu fekkonte ne taxawoon nañ ci kon heure bi weesu nañu fii di dem di dem di dem di dem di dem xoolal ay wuti kayitu juddu wuti kayitu lii kayitu lee. nga dem rang bu bëgg a dee. c'est pas possible. Mhm. te à l'époque déjà ça pouvait être réglé à plus forte raison maintenant donc man defe naa ne diggante Rwanda ak Sénégal ci côté boobu. en tout cas lu intéressé la Paul Kagame mhm. euh, xëy na mën nañ ci am ay développement ensuite bon région boobu région bu compliqué la digganteem ak ci Tshisekedi mhm. Congo Zaïre mhm. Kinshasa euh, neexut euh, am na guerre et nañu fexe ba affaire bi dal parce que réew yooyu ma sànq maa ngi wax depuis tubaab bi nangam nangam mais Afrique xolu Afrique mooy Congo mm-hmm. ba fa derete mbaat tuuroo ba tey Afrique demut li mm-hmm. fekk Congo jógut Afrique du dem loolu la mm-hmm. yàlla dogal kon war na noo mën a fexe ba affaire yi dal ci côté boobu euh, yi ci des nag li may wax man di ko wax sama bopp parce que sama bopp laa ko sañ wax ak ñi bëgg déglu àddina kenn mënut ne ni ma ko gisee lay doxe mm-hmm. yàlla moo noonu àddina même ba mu sàkkee nit ñi maam aadama ne malaaka yi su jóot leen dafa am ku ne noonoo ku su jootut mm-hmm. dëgg la wala déet te am njàngale la kon bëgg a toog fii way di war naa ñëw di wër te dem kii wër te toog ak kii wax ak kii <laughs> nit appel à la candidature mais lañu kii dem fii kii lan lañu lan lañu bëgg nun il faut nu xam ko itam parce que mhm. bu dul loolu da ngay jàdd defe na yaa ngi jëm Kaolack fekk yow yaa nga jëm Linguère da ngay jàdd te doo ko xam mhm. lan lañu bëgg régler sunuy problème nañu seet ni ñuy fexe ba régler sunuy problème waaye Moussa daa ñuul waroo wax ak moom kee dafa njool waroo wax ak moom kee dafa nii kee mais ku nekk na mu mel kooku digganteem la ak boppam walla ak suñu borom. Mhm. walla déet man daal defe naa ne maintenant nag ñi koy wax sañ nañu ko. parce que on est en démocratie liberté d'expression. Mhm. waaye nag ñiy liggéey ñiy jëf ñi nga xam dañ leen a dénk ay responsabilité ñooñu dañoo war a. dañu war a concentrer ci liggéey bi mhm. alors fi ñuy euh, euh, euh, ñëwee ci dernière partie bi comme Sénégal dafa war a am dafa war a dem ci exploitation pétrole ak gaz tey fu ñuy waxee ak yéen ci biir semaine bi jot nañu gérer problème mu accord de yi am na yuñ ci changé am na yuñ ci renégocier ba publier sax euh, bateau yi nga xam ne ñoom ñoo am droit accès parce que évidemment am na ñu daan napp ci côte bi te amuñu woon sax euh, licence wala boog permettre ñu leen ko woon mu nekk benn phase boo xam ne euh, ñoom jël nañ ci considération ñu jëm ci pétrole ak gaz tey ñu war a renégocier waat mais bu fekkee contrat yi pareegul nan la Sénégal mën ci gisee boppam ci li nga xamante ni moom lañ jëm muy exploitation boobu <laughs> waaw xam nga <laughs> wax boobu question aussi dafa yaatu yaatuwaay boo xam ne. Mhm. d' abord man xaw ma euh, euh, convention yi nga naan renégocier et cetera et tout ça. Mhm. Euh, même gouvernement bi defe naa ne waxul bu ma ñëwee walla lépp non dañuy seet da kay seet. Mhm. lii jar naa xoolaat ñu xoolaat ah lii de moom baax na. nga teg ñu maintenir mais noonu loolu la war a demee. def te defe naa ne ci la ñu ne te pare guñu ci nag. Mhm. te pare guñ ci aussi donc su suñu yàkkamtee ba bëgg a tirer ay conclusion ci liggéey boo xam ne pareegut ça aussi ay ay difficulté la. deuxièmement la pêche c'est pas seulement les accords de pêche avec l'Union européenne là non kooku aspect la ci rek boobu aspect la ci rek je je me demande sax est-ce que mooy aspect principal bi bateau yi ñuy wax. yow yónnee naa la ay ay mhm. affaire yu bare ci ci lu ma doon yëngu ci wàllu napp mhm. fu nekk dem fa euh, Dakaaru géeg li fi xew xam naa ko ak Mbuur Joal Guet Ndar Kayaar mhm. mu ngoog fu ci nekk donc euh, problème bu yaatu la sa dara dafee tuutiwut wut jafe-jafe yii nu jànkoonteel di ko lij dara tuuti ci lu ci ne pas louche seulement non c'est-à-dire ampleur bi dayo bi mu am jën géej sept cent kilomètres de côte nga am deux cent miles souveraineté ci géej gi boo ko xoolee euh, ñaata la dina jege ñaar téeméer ñetti téeméeri junni kilomètres yu carré yu Sénégal moom ci géej dafa yaatu effectivement xëy na ñëpp xamewuñu ko wonoonu sax dafa yaatu donc loolu ak li ci jot a xew euh, du lu tuuti donc du lu ñuy lijjanti ñaar ñetti fan hein ah oui gars yi xool nañu licence de pêche ah kon nag say réglé non non non non non non problème mu pêche du ñetti fan du ñetti weer lañ koy lijjanti. Mhm. da ngay tàmbali di def di def di def di def di def ba keroog muy sotti. Mhm. voilà euh, euh, man dama wax ne. defoon naa proposition boobu assemblée nationale nañu def un fonds public d'investissement sur la pêche bateau yi ñëw di jóge fële ak ci yeneen dëkk yi yeneen réew yi di ñëw ci Sénégal mais nañu fexe ba bateau yu mel noonu nun nu am ko mm-hmm. bu ko defee <laughs> li ñuy napp ñun ñu di ko napp muy yem ci nun ñu di ko mm-hmm. transformer di ko jariñoo di ko jaay bitim réew mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc Euh, transformation yi dafa xóot de. <laughs> nekkul lu terre donc comme ni ma ko waxee euh, sànq euh, dernière partie bi muy pétrole beeg gaz bi tout à l'heure ñëw naa ci nan nga jàpp ni gouvernement bi noonu la ci war a demee rek bu ko defee ñun ñu mun ci gis. suñu ah non li mu wax kay dinañ ko seet ñoo ngi dinañ seet contrat yi seet convention yi seet accords yi ci la ñu ne waaye buñ ko seetee ba pare dinañ ñu wax. mu demee bu boobaa ñu mën cee wax fi mu ne leen a war a bàyyi ñu seet ko puisque defe naa ñu ngi koy seet mm-hmm. lépp solo rek mooy euh, pétrole ak gaz war ñoo mën a amal njëriñ mm-hmm. ndax am na ay réew yu am petrole ak gaz te gars yi bu ñu añee du ñu reer mm-hmm. d'accord donc nañu lijjanti loolu bañ a foog itam ne am na nu pétrole ak gaz kon léegi mën na noo yendu ci grand place yi Eh, ak naanukaayu attaay yi. <laughs> pourquoi nga wax loolu. Hmm? pourquoi nga wax loolu. non parce que bu bu dul leer ci suñu bopp dangay jàpp ne pétrole beeg gaz li muy jur ci alal du jeex du xaaj kon war na mën a. njaataayu <laughs> <laughs> c'est ça. affaire bi ça il faut nu ambition ngay am ambition ambition maanaam. ñu ne seg ci sa kanam ñëpp nga raw leen ba ne ca kanam. et c'est possible Sénégal war na ko mën a def. il a tous les potentialités. waaw euh, mais dafa bari yu mu laaj euh, bokk na ci li mu laaj li mu bon am na yu bari yu ma la jot a wax. ñun ñu mm-hmm. suñu bopp nu changer suñu. comportement waaw suñu comportement suñu. mentalité suñu mentalité suñu toogaay. wala sunu taxawaay mais am na yeneen aussi ñu wara a lijjanti xam nga euh, Afrique gu sow jant maa ngi koy wax fii sànq euh, parce que dañ ne Ousmane Sonko nee na day dem ci yenn pays mm-hmm. ma def ci sama page Facebook ma ne loolu lu baax la est-ce que soxna si xam nga ne soxna lan la xam nga ne tubaab yi bi ñu fi nekkee. mille cent 1895 ba cent 1958 muy ñaata at juróom-benn fukki at ak ñett daanaka ci wàllu dure mook ba ñu amee indépendance ak léegi benn la. benn la. Mhm. Afrique yëpp française occidentale française juróom-ñetti réew benn kilifa la ñu amoon mu dëkk fii ci pré palais présidentiel bi. ñu tuddee ko gouverneur général de l'AOF am déet mm-hmm. ñooñu tubaab bi da leen a boole woon ba ñu am sax ab armée armée boo xam ne sénégalais yaa nga ca Côte d'Ivoire nga ca bene nga ca Niger ñépp nga ca d'accord mm-hmm. tubaab bi laata ñuy dem dañ ñu tasaare dañ ñoo tasaare voilà Sénégal jaar fii ñii jaar fee kee jaar fee kee jaar fee ba léegi lijjantiwuñu loolu te réew yooyu tubaab yi yilifan quatre millions six cent mille kilomètres carrés ëpp Inde un million de kilomètres carrés yu topp ëpp France juróom-ñaari yoon mhm. <laughs> te li ne ci alal ci réew yooyu sunu réew yi li ci ne ci alal soo jëlee la ne alal Inde ak la ne ci alal France ñoo leen ëpple ba pare ñu continuer di pauvre. te mënunoo te mënunoo doy na waar. ah voilà kon loolu bokk na ci liggéeyu gars yi bokk na ci de ay ah, ci liggéey bi la bokk. Mhm, am na solo <laughs> merci beaucoup kilifa gi. Euh, amoon nañu mbégte ak plaisir dalal la euh, saa su nekk bu ñu la dalalee rek dinañ jàng tuuti même bu nekkee euh, bëriwul mais quand même dañuy am toujours un plaisir di la dalal suñu ay plateau. di lu waxtaan bi di jéggalu aussi ci dérangement bi ku ne xam na ni week lu ci ëpp ci ngeen di noppaliku tellement que activités yi day bëri mais saa yuñ la soxlaa rek dag ñu koy yombalal ñu ngi la ci jaajëfal bu baax a ma bàyyi la nga tàggatoo internet maa ngi lay gërëm tey moom damaa ñëw ci seen studio bi mm-hmm. parce que dama kontaan ci seen taxawaay saa su ne da di ñëw sama kër di ma mm-hmm. di waxtaan ak man mm-hmm. euh, di leen encourager vous êtes jeune merci beaucoup gis naa ne am ngeen ambition am ngeen talent bi mm-hmm. te am ngeen nit bu amee jom rek mm-hmm. dina mën a sore jom mm-hmm. parce que nit su amul jom moom jëmmi nit a fa ne waaye dangay ngay waaru kon euh, maa ngi leen di encourager di leen ñaanal di gërëm di sant ñi nga xam ne ñi ngi ñu doon seetaan ci Sénégal 7 merci soxna Lalla. merci beaucoup euh, may jaajëfal bu baax a baax tuuti mi nga xamante ni moom moo jàppoon sur la partie. Ah, soxna tuuti aussi waaw. Ah, moom léegi de tonton moom la moom. kenn mënu ci dara tuuti yaa ngi nangu sama tonton yi rek <laughs> donc di la jaajëfal bu baax a baax si liggéey bu am solo bi ni lay demee saa su nekk sur Sénégal set mais tey damay souhaiter joyeux anniversaire sama maam. Euh, maam Bamar Gueye euh, donc maam bu baax bu bu yàgg a taxaw. ak Bamar Gueye ah. donc ma koy moo koy souhaiter joyeux anniversaire di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaay bi sama chéri la xam naa ne tey moom du nopp mère bi man lay nopp ndax man au moins souhaiter naa ko joyeux <laughs> anniversaire donc di la ñaanal gudd fan ak wér li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal ci barke Seydouna Mohamed rendez-vous à très bientôt jërë ngeen jëf